Issa May Bokandé ñu dippee ko la panthère ben di wax ci dundu Jules François Bokandé lolé nak kiko ko réalisé di Macky Madiba Silla ak Lionel Bourki ñom ñooñee di léral rek nan fi daleen soxol ndax Bokandé dafa xéxal dëkkam faté ko waxul nek yoon. seen équipe bi daan ñu leen bàyyi parce que dañ leen wax puisque ñu leen di fay xam nga ñun lutax ñu leen di fay yeen ngeen dem ci football pour seen dëkk mais Bokandé pour mu ñëw football dëkkam daf ko jaralon muy muy wax arbitre ay wax yu xam carton rouge comme ça mu donc parce que buñ la suspendre xam da ngay tok ñaari match football donc ci lay profité au Sénégal football mais da doon delu dañ mais bu dul millions lañ ko à l'époque mais na Sénégal jaralon de a mu nekkoon doomu Casamance nekk doomu Sénégal tout ce qu'il voulait tout ce qu'il rêvait c'est que le Sénégal brille. Parce que nous, nous, nous, football, gis étoile, gis dëkk muy briller. Je pense que nous, on a ressenti ça, le Sénégal gagné Cannes. Parce que c'était quelque chose dont on avait besoin. Man, dama doon toog naan mais lu tax gagné ba ba mu jullee ba mais il faut il faut ñu gagner. man j'ai plus de 40 ans Je bëgg ñu nous gagnions. di réalisateur bi di ñëw ci archive yi nga xam ne tax nit ñi nit ñi am repère lolé dañ ko wara gëna fonk. mom dafa am solo parce que sans archive man cinéma bi may def sama ma archive du ma du ma mën def film archive moy da ngay dem set toujours il faut enfance. faut toujours partir de l'enfance, parce que ñun ñëpp boo suñu construction fofu la fofu la lepp tambalé parce que koo ci la dana ah ma ngi fàttaliku ko bama nekkee gone archive moy lolu ma ngi ko pour ko nak il faut nga am ay éléments muy photo muy vidéo bon à l'époque malheureusement vidéo yi bon c'était pas c'était pas ça donc lolu la jël ma dajale ko. moom laa njëkk def dem uti archive maanaam photo coupe euh, coupure de journaux euh, image yooyu yëpp su ma amee loolu yëpp nag ma daal di commencé sama sama trame ma xool yan nit laay jël ñu mën a raconter histoire bi xam nga souvent da xool kat may meilleur xarit bi xool ñu ko gis bu ma nekkee xale xam nga comme Bocandé c'était euh, magam bu jigéen parce que moo ko mag moo ko yar moo ko moo ko moo ko doon téye ak xaritam ñu mënoon àndal football di football ñooñ ñoo lu mun raconter enfance bi une fois nga am loolu ci nga gën a mën a jox consistance ak sa personnage parce que souvent nit ñi da leen di xam bu ñu demee ba siiw ba fës mais fu ñu jaar ba egsi loolu voilà c'est important donc léegi archive bi loolu lay wax parce que Bocandé dañ ko suspendre 1981 dafa agressé benn arbitre après benn match mais bon je veux pas spoiler mais match boobu lu tax mu am am na ay affaire yu ñuul yu si am même par rapport ak Casamance conflit bi dafa feeñ ci football boobu dafa feeñ match boobu mais loolu xaw ma ko woon bima jotté archive laa ah ok d'accord. djugé ci lolu Essa May Bokande la panthère dinañ ko projeté ci ay fan yu néew ngir public bi gëna xam gëna a jaaru Jules François Bokande.